asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Abo maa ngi lay nuyu di la siyaar Mbàkke ñëw tey ànd ak délégation bi ñu àndal ci turu président Macky Sall mu yabal ñu fii ci Daaru Salaam gannaaw bi xew-xew bi amee ma ànd ceeg gouverneur de la région de Diourbel ak DG Galaba préfet bu département Mbàkke ak sous-préfet Ndam ak sëñ monsieur le ministre Abdou Bali Mbacké xam ne ci kër gi la bokk président yebal ñu pour ñuy ñëw siyaare leen li ngeen bokk gannaaw bi fi sëriñ bi jógee ne woon xaritam moo taxoon tey mun nañu nañ fekk si te laata ñu ñëw nañ egg ci waajuram sëriñ Mountakha Bachir siyaare ko ko ñaanal ko gannaaw gi ñu jaar ci sëriñ bi euh, ànd ak moom ñëw fii tànk yi tànk yi njaal la yu président Macky Sall di yëkkati ci turam waaye ci turu réew mi yëpp yot ko waa Daaru Salaam nee na mi ngi leen koy masaw di leen ko siyaar di ñaan yàlla mu taseeg maamam yu baax ya ci àjjana yi gën a kawe ngi koy ñaanal di sàkku nag njaboot gi fi nekk ñu ñaanal Sénégal waaye ni ma ko waxee léegi sëñ Muntaxa rek waaye ñaanal àdduna ndax lii ñuy dund jàpp nañ ne ni ko sëriñ bi waxee suñu boroom moo ko wàcce ñu nekk ay jaam yu tuuti suñu delloo ci moom toroxlu ñaan ko yàlla mën nañ cee may ndam donc président dal ne mi ngi leen di siyaare di leen jaale sëriñ bi di feddali kóllëreem digganteem ak Daaru Salaam lépp loo xam ne nii taxawoon na ko ci wetu sëriñ bi ci Daaru Salaam tey la ko gën a def incha allah donc mi ngi ñaan daal gannaaw bu ñu ñaanalee sëriñ bi ngeen ñaanal ko yan bi nga xam ni moom la ko suñ borom yan mu oyof lool ba naal yi nga xam ni am na ko ci Sénégal mu eggale ko ak jàmm tànk yi daal tànk njàlloo xam na ne jamono xat na mbas mi eh, dugg na ci réew mi waaye jàpp na ne daal euh, Daaru Salaam lu mel nii bu fi bu fi dalee mënu fee ñàkk a yónnee loolu moo tax ñu egg si fi ñu ngi la koy siyaare bu baax Mbàkke di ñaan yàlla njaboot gi si tees yàlla nañ fi yàgg lool yàgg ko ñaanal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu le ministre Dame Diop Serigne Abou Mbacké di xalifab Daaru Salaam ak njabootu Daaru gépp mu ngi lay delloo ab nuyoo di ko tàmbalee nag ci sant eh, Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy Sëriñ Tuubaa te li waroon ci kër gi lépp démb mu def ko ñëwal fi boppam def lépp mi ngi koy sant waaye di la di teg di la nuyu di nuyu délégation bi nga àndal monsieur le ministre Cheikh Abdou Bali ak monsieur le gouverneur Gorgui Mbaye ak monsieur le préfet bu Mbacké Serigne Diop ak monsieur le sous-préfet ak Gallo ak délégation bi ngeen àndal yëpp Serigne Abo Baraka Mbacké nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo di leen di teg ci seen loxo tam ab nuyoo ak cant ngeen tegal ko ci loxo président Macky Sall nee na xam na ne Macky Sall ku fonk Darou Salaam la moom ab génnam daawul bari waaye lu fi xew rek dégg na ci loxo Macky Sall mu yónnee fi ay ndaw bokk ak nun xew wa ak lu xew mën a doon kon nag ku baax kii fi bàyyi ko démb rek mu forme délégation bu toll nii yónnee xam na ne moog nun noo noo noo bokk naqar wi moog nun na ko bokk kon nag sëriñ baa ngi leen di delloo ab nuyoo te di leen xamal ne eh, réew mi réew fi mu toll nii ak ni jamono xate ak mbas mi nga xam ne waxtu wu ne guddeeg bëccëg mi ngi ñaan sunu borom mi fi wàcce mbas mi teggi ko fi teggil ko senegal teggil ko àdduna bépp ndax sunu borom ni mu bind jaam ñi rek la leen la leen bëggee moo xam ñi ko gëm ak ñi ko gëmut moo tax mu wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina kon laalamiina mooy baat boobu lépp dugg na ci euh, kon mi ngi ñaan mbas mi teggiku di leen ñaanal di ñaan sëriñ Muntaxa yàgg fi lool te wér di ñaan sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jili sëriñ Tubaa teeru ko teg ko ci loxol rasulullahi mu dugal ko àjjana euh, di ñaanal président de la république yéene ji mu am ci réew mi ak euh, mébét yi bari na lool waaye mi ngi koy ñaanal suñu borom antul mébét yëpp suñu borom antul mébét yëpp di ñaanal Sénégal gépp suñ borom def fi naataange te saxal nu ci ak jaamu yàlla jaamu yàlla gi ni ko suñ Muntaxa di waxee rek jaamu yàlla gi rek moo mën a dàq li fi nekk kon nag nu sax ci jaamu yàlla sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax yéen ñi mu fi yebal di di feddliwaat ak cantam yi sëñ Abdou Khadir sëñ Cheikh Abdou mi nga xam ne ab jarbaatama waaye loolu moom ma yokkal leen ko ci am ngeen loo xam ne lii yéen ko njëkk am ci délégation bu fi ñëw ndax néeg bii leen sëñ bi wàccee soxna Maymuna mi ngeen di dégg muy mag ci mag ci way siñ Sëriñ Cheikh mi soxna May Kubra ci néeg bi la dëkke woon defe naa ne yéen fi njëkk a dugg ci délégation xam naa ne jigéen la woon ji teel a mokkal alxuraan jigéen la woon ji bari xam-xam yoo xam ne néegam bi mu daan jaamu yàlla lu fi waay ñaan am ko kon nag ñu ngi ñu leen sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah